Vai minute. Ah, vamos embora. Volta, volta. Volta, volta de suco, vá. Prepara aí, número aka Fatma Fatima Zahra Coulibaly Yacine Awo demandeur la alaykum au Sénégal mbok diaspora euh, ci Louga émission My Coach ci une télévision numérique d'Intel TV ñu open premier open euh, Kona Sanse Karaté Club à ci Louga terrain basket tay nak ñu bëggoon résumé touti wax leen ñaata combattant ak lan léegi pour ñu xamal leen ni euh, régions yi ci Sénégal yëpp ñu ngi daje fii tey euh, tey moom daje mi Louga la képp nga xame ni yaa ngi wuyoo karaté ci Sénégal yaa ngi daje fii ci Louga ñu ñëw si wàllu club yi fi daje yëpp jàppal ni kon euh, kon 14 régions moo fi am région bu nekk am na club bu ko fi représenté. ñu ñëw si wàllu kata om kata nag mooy combat imaginaire ñu ñëw fukk ak ñaari góor ñoo fi daje tey di ko jongante kata daam mooy combat imaginaire mooy technique ñu gën koo xam ci technique muy juróom-ñeenti jigéen ñu ñëw ci wàllu kimité kimité nag mooy combat combat mooy lan xeexu diggante ñaari nit raw gàddu la ku jëm tak mooy tey qualification yi euh, catégorie moyen de 60 kilos ñi ngeet personnes catégorie moins de 67 kg nous 25 combattants catégorie moins de 75 nous 30 athlètes catégorie moins de 84 nous 16 athlètes catégorie moins de plus de 84 nous avons 9 athlètes Si vous avez ba qui combat lépp lépp buñ ko dajalee ci wàllu comité ñi ngi am cent personnes kon cinq yi ñoo ngi fële ci wàllu kata euh, bi kon nag ñu xam ni tey qualification yi lañ toll kon ba si kanamee dinañ leen jox résultat yi ñoo xam fu ñu toll jërë ngeen jëf. kooku diaspora yéen a ngi seen ñu ñëw si Open Opona Karaté Club bu nga xaman si tey képp kuy def karaté ci senegal fukk ak ñeenti région yëpp ñu koy dëkk euh, fii ci waaw léegi ñu bëggoon leen a xamal ñaata combattant ñoo fi nekk ñu ngi nekk si au nombre de 135 combattants bu ñëwee si catégorie euh, kata kata mooy combat imaginaire mooy combat boo xamee ni si da nga koy def ak sa bopp mel ni da ngaa gis nit te gisoo ci walu góor ñi ngi personnes ci walu jigéen ñi ngi comité combat ci jël par catégorie de poids la catégorie moins de 60 20 personnes la catégorie moins de 67 kg 25 personnes catégorie moyenne de 75 kg, 30 personnes catégorie moyenne de 84 kg, 16 personnes catégorie plus de 84 kg, 9 personnes au nombre de 100 compétition Senegal untuk diaspora bi yëpp ñoo ngi fii ci Louga ci si de di open kona sant sante kona ñu taxaw ak di pap maître pap amadou fa ñu bàyyi ko mu nuyoo salaamaaleykum ngi di remercier aussi ci li ngeen di def interview pour mën a jaay plateau euh, maître fall dañu bëggoon a xam euh, tey lu waral euh, sabab bi yëpp te nañ ko def fu lan tax ngi xalaat ko indi ko fii ci Louga waaw euh, indi ko Louga nekk na loo xamante ni du lu ñu war a mën a bett parce que ñu ko doon na ku xam au moins euh

ñaata combattant ñoo fi dajaloo tey. waaye parce que combattant yi ñu ngi mag ci cent boo boolee ñu jëkk ci comité ak ñu nekk ci kata comité mooy ñi nga xamante ni ni ñooy ñooy jongante par ñaar ak kata bi nga xam ne moom mooy li wàll mel ni benn démonstration boo def yow rek euh, ñooñu ñëpp tase nañ te boo ko xoolee dañoo segg mënoon na ëpp lool parce que tey jii boo nee club bu nekk na indi kenn ka nga xam ni nga indi kenn cela veut dire que day xool ka indi ko donc mënoon nañoo def ñaar ba ñett ba ñent dana bari lool sax ëpp lii waaye kon euh, niveau technique bi day wàcc léegi nag pour que niveau technique bi baax moo ñu ni nañu woote pour que ñu mën a andi kenn ku nekk ci sa club pour nga xam ne di nga mën am niveau bu relevé waa tey nga doon en tant que ex athlète nga nekkoon athlète boo xamee ni si njàmbur gi yëpp xamee nan la ci nga defi lu nekk représenté Kébémer représenté région de Louga fu nekk tey boo taxawee gis xale yi di jëflante nii ban yëg-yëg nga si am waaw bon yëg-yëg bu neex parce que man chaleur bi may am fii dafay mel ni daf may delloo si ba ma nekkoon combattant euh, nekkoon naa bi ma jógee université Dakar université club dama ñëwaat fii parce que man Kébémer laa dëkk ñëwaat Njàmbur j'ai même tiré au ci couleuru Njàmbur donc su ma ñëwaatee fii damay fàttaliku na ma fi nekkee woon aussi sama xel di dal parce que lu sama xel di dal damay gis ni relève bi mi ngi fi dama ñaan yàlla ñi booy yi def loo xam man defuma ko woon mais maa ngi am vraiment satisfaction di ñëwaat di dund ak sama ni nga xamante noonu laa def ba euh, maanaam euh, reconversion bi ma def bay ñëw di bokkaat karaté bi nekk na loo xam amal na ma solo trop. kon ban yóbbante nga am booy yóbbante Dental TV. ah Dental TV xanaa rek di leen wax ni ci kaw ci kanam ci jàpp bi ngeen ci jàpp kii ni ngeen bëggee sport j'ai vu que vous faites beaucoup d'interviews vous faites beaucoup de plateaux de sport donc nekk na loo xam ne tërale ngeen ko sport bu leen ñëwee aussi ci karaté bi euh, vraiment dana nekk loo xam ne dañ leen di jël comme ressources humaines ultérieurement ailleurs partout où on aura on aura besoin de vous on fera appel à vous xam na di ngeen ci def lu ngeen man ndax am na yéene ni ngeen koy defee gis nañ liggéey bi ni ngeen ci sonne ak ni ngeen ñëwee tey jii occuper plateau presse bi donc loolu on vous encourage et euh, on vous demande d'aller on on ñu ngi leen di ñaanal ngeen gën a jëm ci kaw ca kanam. jërëjëf Maître Fall Dental TV mi ngi lay gërëm. merci beaucoup. Sénégal ñu nekk fii tey si Louga ñu ñëw fekk si fii sunu benn papa boo xamee ne ku def sport Louga mënoo wax te nous ci tonton Mori rawati nañu fekk ko ci bi nga xamee si tey mooy basket mu nekk fi bi muy nekk béton mu nekk fi fi champion bu ne tey ñu ñëw fekkaat ko ci presse bi fekk ko ci région de Louga ñu ñu tonton Mori mu nuyoo ak waa àdduna waa Sénégal yëpp mu wax ñu sport Louga parce que fu mu ku jénne ay champion wax dëgg yàlla fun la fekk war na laa delloo njukkal tonton Mori bismillah euh, asalaamaaleykum maa ngi nuyu téléspectateurs yëpp met euh, di la gërëm bu baax ci li nga jox ma sa kàddu ndax nit ku baax rek mooy gis mbaaxu nit ba di ko wax euh, ban ca tolloo ba fi nu toll nii ñu ngi œuvrer pour le sport euh, yaakaar naa ni nag ni ko defe nii bàyyi li ngay def yëpp jóge Dakar ñëw ba fii pour wattu li nga xam ne moom mooy open li nga xam ne moo fay tey niveau national mën na ni tey jii Louga mooy capitalu karaté national karate euh, karaté continuer à diffuser fi dund ndax biir bi na salles euh, euh, sport aussi en basket de première division pour maintenir euh, dans playoff du Sénégal vois le football démb rek équipe bu njàmbur bi gagné na ñaari tali 2 à 1 euh, ci wàllu handball moom moo xaw a sauvé te président de la ligue bi nee na dana fas yéene taxaw pour jéem a essayé fexe ba handball bi dellu fu mu nekkoon kon daal wax dëgg yàlla du ma def lu dul gërëm la sant la am mbégte lool ndax nit koo defal teraanga mu dem ba fàttali ko teraanga boobu moom moo baax encore une fois merci yàlla na bu la nattoo dara da nga taxaw na mu gën a rafete na mu gën a baaxee nga defe ko noonu bëgg rek mooy la politique sportive bu Sénégal suñ ko joññanti woon tuuti rek maanaam fexe ba société yi ñu wàññi leen exonération yi ñuy fay euh, ñoom ñu mën a jël en charge karatéka yi jël footballeur yi jël basket yi dana nekk professionnalisme bu bu bu aw yoon mais tant que ñu ngi def amateurisme mu ëpp ci bien vrai que nee noon professionnel football bi professionnalisme la mais des na du à cent pour cent loolu daal la ñuy ñaanaat ñu revoir la politique sportive du Sénégal ba nga xam ne société yi daanu mën a jël ay euh, ay équipe di jaay ay joueurs di jënd ay joueurs quitte à ce que état bi financé leen yóbbu leen audité leen leen laaj leen ba xam xaalis bu ko def suñ ko defee sport dina gën a wasaarewu ci Sénégal di la gërëm encore une fois di la sant kon tonton Marie Dental TV mi ngi lay jërë jaajëfal yaa ngi ci seen émission my coach waaw euh, dental bi nag wuyu na boppam da ngeen a yaatal ba ak sulu ko wasaaro waaw bëgg naa leen fi nag nekk fi lu fi am rek ma yónnee leen ko Dakar incha allah incha allah tonton Marie loolu dina